ahousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibadi laysa lak alayhim sultaan walaw yaxsimaku min anas ya allah barki borom bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki umul islaam ginnaaw bi jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér di siyaare sunu jëwriñ sëriñ Afia Bouchal imam ah, di wax ne nag tey sunu jataay bii buñ ko gisee mi ngi jëm ci eh, jottalil sëriñ Afia bu sal ay kàddu yu jëm ci bokki eh, taalibe yëpp rawatina ñi ne ci diaspora bi te waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñooy ànd ci jàpp ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji eh, sëriñ bi ne mu ne ginnaaw kàddu yu cant kàddu yu ngërëm kàddu yu ñaan kàddu yu soññee kàddu fàttali nag bis bu màgg bi nga xam ne moo jëm ci suñu kanam muy bisub seex naa seex Ahmad al Xaddim bi nga xam ne moo nu ko santoon muy santaane sëriñ Touba muy ndigal mu jëm ci santale ko sunu borom bis boobu nag Serigne yaa fii dafa wax ne euh, waxtu wu bis bi buñ masaan toll fii daanañ yëkkati suñuy kàddu mu jëm ci euh, fàttali ko mboolem koo xam ne daana jàpp ci liggéey bi mboolem koo xam ne itam da ngay membre daayira Muxaddamatul Xidma wala ngay defkatu lu baax ñu fàttali leen liggéey bi nga xam ne daayira bi dana koy taxawul Seexul Xaddim ci jumaa ji euh, bis boobu nag euh, bu weer wi feeñee moom bis bi ci njëkk ci weeru safar mooy bis bi nga xam ne ci la daayira Muxaddamatul Xidma di tàmbali ab liggéeyam ci te njëkkee ko ci biir barabu seexu Seexuna Seex Ahmad al Xaddim foofu la ñuy tàmbalee liggéey bi ci taaral ko ak ci setal gi xayal gi euh, bu ñu jógee ci biir barab bi nag dugg ci jumaa ji biir ak biti kaw ak suuf fépp urum bi dayre bi dana taxaw ci lépp lu aju ci wàllu entretien daayira bi mooy taxaw ci loolu ba da liggéey bi mel ni ko boroomam bëggee euh, noonu tam la ñuy wéyale liggéey bi ndax daayira bi euh, kenn ku ne xam na ne bu màggal gi egsee danañ waa waajal toll ci junni doomu aadama yoo xam ne ñooy taxawu liggéey bi di ko saytu ci mbooleem biir géej bitt gi yépp eh, ba gan ñi nga xam ne ñooy màggal si bu ñu egsee ci jumaa ji ñu mën a joxe seeni farata ba kenn ku ci ne mën a eh, egg ci sëriñ bi siyaare ba siyaare ni nga ko bëggee mën a delluwaat ci jàmm loolu daayira bi moo koy taxawu daayira bi tamit mooy taxawu mbooloo moomu nga xam ne moo leen taxaw moo leen saytu ba indi leen ñuy taxawu liggéey bi daayira bi moo leen di taxaw bu ñu xoolee lu toll ci mbooloo moomu nu wax daayira bi moo leen di añal daayira bi moo leen di reeral dayre bi moo leen di ndekkil lépp lu aju ci biir entretien bi tam daayira bi moo koy def ba ci ventilateur yi dayre bi da koy waat da koy xool yëpp peel yi benn bu ci doxut daayira bi da koy xool ñu sensé waat ko defaraat ko ba lépp rek maanaam mel ni ko boromam liggéey bi bëggee muy seex na Seex Ahmad Xaddim kon nag liggéey boobu lañ doon jottali Euh, bu ñu waxee euh, diaspora nag diggante Amérique ak Europe ak Asie ak Afrique ak fépp fooy nekk ci bitim réew euh, maanaam yaa ngi ci biir woote boobu ñu jot jotali nag ñun sunu kàddu bopp sunu cantuk bopp ndax mën nañoo seede ci diaspora ndax lépp lu aju ci liggéey bi rek buñ ci tollee ci waxtu yooyu muy koor gi muy màggal gi muy li ci ci ya waa diaspora dañuy daal di ñëw duñu fàtte itam waa fondation Muxaddamaatul Xidma Amérique sañu am sa nekk ci bopp bi ak sëriñ Seex Jonn noonu tam la ñuy wéyale di du ñu fàtte sëñ ma fari Ndiaye coordinateur général mook sëñ Touba ci wàllu Afrique kon tegaat nañ ko ci seen loxo ñu jottali ko mboolem jëwriñu Seex naa Seex Ahmadul Xaadim yi nekk Afrique yépp fépp fooy ne ci continent Afrique rek maanaam tamit woote boobu yaa ngi ci daayira bi nag euh, noonu ñu koy waxee rek mooy daay liggéeyub sëñ Touba boo xam ne daal liggéeyub ñëpp la lu ne ku ne la bu ñu tollee ci waxtu wuñ war a liggéey rek ñu jot ndigal ci sëñ Afia mu jot leen ndigal loolu ñu jotali ko képp ku di umul islaam képp kuy defkatu lu baax rawatina taalibe Cheikh naa si Ahmad al Xaddim yi ñu ànd jàpp ci liggéey bi ba liggéey bii rek mel ni ko boromam bëggee kon jumaa ji moom liggéey bi tàmbali na euh, damay wax nag ne daayira Muxaddamaatul Xidma euh, kenn ku ne xam ne ne bis bu bu agsee buñ ne jumaay tuuba màggal bu agsee ñu ne 4 millions de personnes danañ màggal si dangay xam ne jumaay sëñ Tuubaa ji moo leen di dalal ndax képp ku waaj euh, màggal si boo agsee euh, ci jumaa ji la boo agsee Tuubaa la sam xel bi njëkk a dagg mooy dem siyaare ji seex naa Seex Ahmadal Xaddim ci jumaa ja kon nag foofii mooy fi nga xam ne tey damay wax ne mooy dalal gani sëñ Tuubaa yépp waaw kon yàlla nañ ci agsi ci jàmm euh, woote baa ngi noonu soññe baa ngi noonu muy góor muy jigéen rawatina nag soxna diaspora bi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te jaayante woon ak seexul xadim ngir fas yéene boole seen bopp ñoom tam ñu soxna yooyu muy soxna yu daara yi mu xadimaat yi nga xam ne dañoo am yéene jàpp ci liggéey bi ñooñu tam woo nañ leen ci liggéey bi ndax liggéey bu takkoo fi nekk liggéey bu rëy rëy moo fi nekk kon yàlla nañ ci daje bàtt waxtu di xewaa yi jële siina daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo inna la siina saaraxoon li xidmati fa seen mbokkum taalib Assane Diop xidma Assane Maam Jaara jërë ngeen jëfati